mbokk jullit yi gannaaw bu ñu soppee sunu nuyoo ci kàddu ñi mbokk yi nga xam ne ñoo jëkk a yëkkati kaddu mu ngi noonu bis baa ngi noonu di conférence annuelle bu daayira na Fillahi di amal fii ci Mewane ren nag sëriñ bi mu ngi ko jàpp le 7 janvier 2023 incha allahu taala sëriñ Mor wax na ni jotaay bi daan demee ak fi mu dooree ba ëski fii waaye nag bis bu toll nii ku toll ni sëriñ Mansour jox la nii cër faaw bu ñëwee da ko waajal kon ñu ngi ci soññ mbokki organisateurs yi moo xam action daara ji la ak bépp comité d'organisation bu nekk ci xadara maam Cheikh Sidi Hadji Malick ñu ngi la ci woo te di la ci bàyyi loo xel xam naa dañuy gàttal foofu sunu kàddu rek ndax li ci waroon a jib mbokk yi wax nañu ko bis baa ngi noonu kon ñu jox soxna Nogoy Sarr incha allahu taala rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di dellu rek di sof suñu kàddu ci kàddu mbokk yi nga xamante ni ni ñoo doon wax ah di wax rek ni ñu ngi leen di ñu ngi wax ci kàddu jigéen ñi di wax ci kàddu daayira bi yëpp daayira Mutahabina Fillah di woo ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay woo ci suñu bis bii nga xamante ni ñu ngi koy amal 7 janvier 2023 fii ci Meewaan sëriñ Habib si bu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour di ñu ko defal fii ci meewaan ñu ngi woo ñëpp meewaan ak li ko wër rawatina nag dawaayir yi nekk ci biir meewaan ñëpp ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu raw na gaaña at mim lana rabbi na waxfir jara imana taqlil hawaija na ya wasi'a ruhami ala سلام ربنا دائما سيدي حاجي مالك نينا أتمم لنا نورنا واغفر جرى إمنا تقضي الحوائج نايا واسع رحمي على نبي وعليم أجمعين سلام ربنا دائما عام سيدي حاجي مالك نينا يا ربي صلي على المحمود سيدنا واقبل شفاعته هو في